bu ñu dagg yéen dugal yéen nii dama doon dagg yéen dugal yéen nii. Ah waaw mais amee ko dagg dugal ko. koo dagg dugal ko. Mm-hmm. du noonu parce que man tëb man réew. macha allah dama réew mais gaañ nga ko parce que histoire la. parce que man jigéen mooy sama yaay man du ma dóor jigéen. Mm-hmm. man dama am yërmande si jigéen parce que man ñëpp dañu may foog ne damaa tàppal wala damaa ragal man aw ma xolu di gaañ nit aw ma xolu di dóor nit. Mm-hmm. almost nit xol la sama xol dafa rafet. Mm-hmm. amul kenn ku may invité ci ci ñi invité ba ba ma laaj la paas ba ma laaj la lii ak lii amul ñoom kay ñoo ma exploité parce que maa ngi ñëw man site yëpp man site yëpp man mi maa leen taal. Mm-hmm. man Pawlish maa leen site taal. da ngay ñëw wax ak yow wax loo xam ne dëkk bépp koy seetaan léegi ñoom mënu ma leen di taal bi bëgg maa yem. kenn du may xale laa si joobari amul min amul kenn du ma yeb ci àddina du mbindeef ñaanuma kenn doo ma kenn kenn rek leer fa su ma sonnee sax sama ni dama dem reere fenn su ma xiifee damay jëndi may ga lekk may ga man 700 daf yow mooy sama reer. police vraiment li ngay ah. wax nii yëpp man vraiment. non yaa ma laaj ne soo yaa ma laaj. waaw waaw li ma la laaj ak li nga wax waaw waaw li ma wax. yow dama ne la loo jotee diaspora yi. mais yow li mu wax ci turu déedéet waaw waaw waaw danga may déglu waaw mais yéen mais yéen da ngay téye seen làmmiñ wax. ah non ah, non ah kay. non da ngay non da ngay téye seen làmmiñ de kenn kenn du ma cox jox ko man. man kenn du ma kenn du ma cox waaw kenn du ma cox jox ko man. du mbindee fa may cox cox lu ma neex laa wax man. kenn du ma cox jox ko parce que da ngeen maa invité parce que da ngeen ma dugaloo xel. nu dañ la invité nga nangu ñëw toog ci plateau bi ñu waxtaan ak yow civilisé ñu wax nga wax mais pas pour coot ko coot ko nga naan lii sa génn non non non mais tey lu ma neex laay def lu la neex waa instant lu la neex mën nga ko def ah. léegi li nga laaj yomb na diaspora 221 lan nga jotee ak ñoom ba ñu la plainte xam nga nu may def léegi ah parce que xale la damaa nekk ci yoon xale bu ndaw laa. plainte bi la dugalal lañ bëgg xam. da ngay téye sa laaj ma pare xam nga xale la. yow yaay téye sa laaj mi ñëw xam nga xale laa. xam nga lu tax. xam nga xale laa xam nga xale laa man fii yow laay waxal na fi la na nga baal